Sénégal Info Présentation barakaatu. mbokk yi maa ngi tudd Bisaan Sow dëkk Thiès Medina Fall mais maa ngi fi tey jàmm gën ndax li xew tey mi ngi xew ci sama goro boo xam ni man maay denc rakkam bu jigéen. le le lundi 26 avril 2021 lan ma woo ne ma waa dafa liggéey ba wàcc le vendredi 23 avril gaare ci parking bi dugg ci seen kër ci ginnaaw kër sërëm bi jox yaayam sërica ne borom parking adame le lendemain samedi kenn gisu ko le dimanche kenn gisu ko ba dimanche ngoon laa lan ma woo wax ma ko ay magi doom yo xam sen depuis Mboro jox information 15 minutes après Ibrahima mi woo ma ndax ñom ñoo buntu xarit la Ben bakat dama ndax xaw ci Cheikh ah frère mi mais ñu ne ma comme yaa dëkk ñun Mboro ci ci police def déclaration bi centrale ñu intervention à partir du vendredi du jeudi vendredi 23 avril gisuñu benn yoon fu def intervention portant le nom de Cheikh Mbaye ou bien un inconnu ma dem brigade gendarmerie euh, wax leen loolu ñu ma ko na ngeen delluwaat ci kër ga ma xaar rakam ba mu jógee Mboro rakki doomu ndeyam si la ñëw dugg ci kër gi ubbi néegam fekk fi mbooleem pièce yi mu doon liggéey nag pièce oto bi ay carte d'identité léppam léppam loo xam ne moom la nit di am pour liggéey oto fekk naa mu rangé ko si biir saag bi mu rangé

bin la won dara dama jënd exactement dara bima maa ko mayoon sama jëkkër cheikh ngir mu du ko lal jabar ji reconnaître na jabar dara bi dom ji paalin reconnaître dara bi depuis le 23 nag jusqu'à nos jours maa ngi dem si arrêt di ko ànd si taxi mani, maa ngi dem si mbokk yi ngi dem si dëkkandoo yi ànd ak ñoom Ibrahima kun kam ni ne xam ne yorek dem na fa mais li gënoon amul kuyel le bindi ku ma ne ne apart du 23 ñi ko mujjee gis ñëpp le 23 lañ ko gis muy le gérant du parking nee à demi à 23h client bi mujjee yëpp les 23 mi koy yëpp buntu dépôt jëmee ko sampaté né gañu non la jaari ñibi ñew jox yaayam sëriñ ci même vendredi bi kon luma xew ci mom ci vendredi bi ci ko gi la. muy safane bi muy tey firndeel na ko léegi nag yoon mi ngi ci yef yi enquête banque ngi ci yëf yi ñun xamuñu la xew waaye daal xam naa Cheikh mi disparaître woon depuis le vendredi 23 avril jusqu'à nos jours tay mom la récupéré mom lañ fekk fi ci caniveau bi. mu nekk mu nekk lu ñaw mu nekk lu ñaaw ndax doomu aadama bu ñu génne say loxo ñu takk ko takkul boppam Cheikh ku ko xam-xam ne baay Fall la ku dal la ku sago la ku nangoo liggéey la nangoo jaamu yàlla jeudi boobu la woo magam Badara Mbaye jox ko ñaari junni na ko mënu maa dem ci ndog yi jeudi bi la ko jox na ko maa dem ci ndog yi te mercredi la la koor gi tàmbali waaye maa joxe sama barke si ñaari junni yi ci ndog yi Badara Mbaye yóbbu ko la samedi samedi bi Cheikh kon kooku du nit koy dem di di di sànq boppam ci àll bi xamuñu ko soom liggéey la xam jaamu yàlla dugg néegam dal jàpp ñaamaram. mu nekk la xamante ni tey mënoon koor bi sax mënoon na a feeñ mais xam nga yàlla mi mu am sutura jaamam moo sutura lii tey mu fatt dëkkandoo yi da woy ONAS pour ñu déboucher leen ñu dugg di ko déboucher yam ci yam ci lu mel nii jëf la joo xam nag kuy xalaat ëllëg yamal xiyam di bàyyi lépp loxo yàlla ñun daal sëñ bi li ma ci mën a arrêté mooy li ma mbokk yi santoon en tant que kuy denc sëram ndax sama soxna ak yaay ak mom seen ñaan yaay bok ben nday yaay mag la xamatu lu xew mu ngi fi keur seureum ñom ñom mo dama ko yaanu fa nekkal doxoñu ci enquête bi Cheikh pièce bu mu am ngi ci man ndax ma ko récupéré auto bi mi yor noonu dañ ko liggéey maa ko jox ki mo won auto muy ma gamu job maa ko woon ko fekk ma police jox ci auto enquête bi mi ngi déroulé wu. enquête bi fa la am na ko xamanteni danaka ni daanaka am na. ah bon police daal ma jël na ñëpp leen entendre ñu ngi si audition yi ki mu bokkaloon kër ñu ngi koy auditionné sa propre femme ñu koy auditionné son fils aîné ñu koy auditionné man mi on m'a entendu ak ben jarbatam ñu ko moy moy ki mbokkul keur gi jarbatam ñu ngi leen di auditionné ñom ñep l'enquête est en cours kon li war daal moy jël lepp bàyyi loxol justice mu xol la ca war mu def ko mais li ma leer ba leer moy am na xam yalla bu gëmul nelaw li du feeñ yalla gëmul mi ngi judd en 1956 il a 65 ans mi ngi ak sept gosse ben soxna la amoon amoon yenen soxna mais danoo dem mais kenn la desoon

bu musaana wàcc sama buntu kër la may fekk nuyu ma dugg dugg ci këram sangu tëdd. 6 heures du matin su may dem jàkka ja fajar Cheikh Mbaye ci lay génnaat chaque jour dañuy daje mun ma maa ngi xëy man ko ñu ñu ñu yendu jàmm lool daal laa xam ci moom xarum tabaskeem maa ko mos di rey. gën a Mamadou Wagué mii moo ko daan rey mais ak ñett ñi ça quatre wala cinq ans yoo xamante ni maa ko rey yoo xam tabaskeem. bi nga toogee ay jours gisuloo ko waaw bi ma bi ma toogee. Euh, dañu toog benn benn vendredi ci guddi bi muy disparaître ñëw na nuyu mu waxtaan ni ma damay yóbbul sama yaay euh, li ma ko jëndal sërica ñëw daal di dugg ci biir boobu laa ko koy gis gisuma ko vendredi gisuma ko vendredi ci guddi samedi dimanche gisuma ko ci laa woo Mbisaan ni quoi man ñu ne Cheikh Mbaye gisuñu ko parce que presque deux jours a ngi ni Cheikh mbay oto bi mu gaaree woon ci parking bi moo ngi fi Mbisaan ni ma ah ñoo ñoom ñu ñoo comme man dama damay liggéey ma ma xëy liggéey boobaag léegi nag képp ku ma xam ma nit koo xamante ne Cheikh Mbaye xam na ko woo naa la téléphone laaj la nga ne ma Cheikh de gisuñu ko waaw muy loo xamante ne lu ñaaw la ak ku ko mën a def nag yàlla na ko yàlla feeñal ci barke Seydina Mouhamed. mais tey am na ñoo nga xamante ni ñu waaw am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di déglu. boobu amul nga xamante ni ko ci lenn la. waaw non wax dëgg yàlla comme comme comme justice moo ngi moo ngi def liggéeyam man man duma ci prononcé wu damay bàyyi rek justice def liggéeyam am na ñu mu nekkaloon ci kër gi woo nañ leen comme ni ko Mbissane waxee ja jarbaatam bi mu nekkoon ci kër gi woo nañ ko jabaram ñoo ngi koy entendre ak taawam bu góor waaw mais man daal li ma mën a xam mooy chaque jour que je man fii kër gi bala maa tëdd presque une heure du matin dina jot. mais nag li ci jaaxale rek li ci gën a graaw rek. mooy dañ koo fekk ñu takk loxo bi bala ñu koy dugal. ci waaw waaw waaw loolu loolu jéeme na ndax ndax canal gi ni mel Cheikh Mbaye man man ta takk boppam dugal boppam ci biir ba pare tëjaat canal bi. loolu moom waaw loolu moom c'est impossible. soit nit moko def te aussi bu dee ben nit la dina ma jaxal waaw ndax Cheikh mbay nit am amoon na poids bo xamanteni ben nit rek attanu ko waaw loolu dal xamna ko ci mom waaw. alaykum mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen euh tay ñi ngi fi ci jamm gën tay jamm gën lañu nekk. di leen xamal ni dafa am benn xew-xew bu fi am xew-xew bi mooy euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nettoyer rigole yi xam naa ne pour nawet beeg yooyu noonu dañ doon nettoyer ay rigole bon man koy nettoyer gars yi dugg ci biir fekk fa benn sër benn sër lañ fa fekk ñu génn sër bi laal ko ci biir di gis fa benn loxo waaw ñu ngi fa gis benn loxo loxo bi nak mi ngi nii jàmm gën la amee euh, par la suite ñi ngi euh, joxat ben information ñu ne fa ne la paase amna ben chauffeur taxi boo xamni ni dafa réeroon dafa réeroon euh, taf momit jamm gel na dekk chauffeur taxi bobu jamm gel la dekk xew-xew bi fi amé ak kër gi nga xamni fa le chauffeur taxi bi dëkk sorewuñu police tijji na ci enquête kër gi nga xam ne taximaan bi fa la dëkkoon kër gaa ngi nii fii mooy kër gi gis nga mooy fi nga xam ne nii fii la xale yi taxaw waaw nag tijji na ci enquête xelu population bi nag ñaaw nañu ñaaw na trop trop trop trop euh, rigole daal lan doon nettoyé fekk fa benn sër sër baa ngi nii ah, ñu làqati sër bi ban ko làqatee gis benn loxo loxo bi mi ngi nii loolu nag mi ngi amee jàmb gën ba mu amee jàmm gën nag sapeur ñëw na sapeur ñëw na dugg ci biir kër gi xool génn police tamit ñëw na ba mu ñëwee dugg na ci biir kër gi tamit kër gi nga xam ne nii fa la taximaan bi réeroon taximaan ba mu réeree boobu ak léegi war naa mat ay 2 trois mois waaw comme ni leen ko waxee rek taximaan bi ba mu réeree mat na 2 3 mois waaw police nag tëj na enquête police boobu ñëwee dugg na ci biir kër gi dugg na laaj waa kër gi tontu nañ ko génn nañ dem waaw mi ngi xewee nag jàmm gën loxo bi moom mi ngi nii gis nga loxo bi lii moom loxo loxo nit la carrément mu ngi nii waaw population bu jàmm gën nag vraiment jaaxle nañu trop trop trop trop trop chauffeur taxi boobu ñuy wax tamit ba mu réeree mat na 2 3 mois boobu léegi ñu doon ko seet gisuñu ko nag amuñu ci woon benn nouvelle te chauffeur taxi bi kër gi mu dëkk ak fi nga xam ni fële rigol yi nekk.